Paba monsieur le ministre euh, yaa jiite alliance pour la paix et le développement certainement aussi fitna bi yeewu fan yi ci campagne électorale bi euh, interpellé na la yow en tant que homme de paix boo xam ne noonu sax nga duppee sa parti lan mooy expliquer pour yow li ñu jot a dund fan yi ba mu indi ci euh, penc mi ay déclaration yu mel ni bu premier ministre Ousmane Sonko ak réplique bu Barthélémy Dias heureusement qu'ils sont revenus en euh, de meilleurs sentiments mais ba léegi euh, yëf yi jeexagul mun nañ ko wax parce que caravane yi dañuy daje Dakar et puis fitna fitna tam mun na jugaatee fu nekk lan mooy expliquer violence bi ci ci campagne Fatou li may jëkk wax ci loolu mooy may ñaan yàlla suñu borom rek la constance que j'ai toujours eue yàlla na ma ci yàlla suñu borom saxal. Mm-hmm. ba yàlla bu ma ci jóg. Mm-hmm. moi j'ai organisé ici des manifestations sur la violence c'était à l'Harmattan ma def ay marches ici à Liberté 6 def ay marché à Darou Moussi et pour parer à ce qui est arrivé là dama posté waat ces manifestations yi nga xam ne maa ko doon conduire trois cent et quelques jeunes ici à Dakar et à Darou Moussi nga xam dama fa woon mbër yi ñoom Gris Bordeaux woo ñoo fa maître mais maître maître Dame Seck woo fa les agences de sécurité pour que ñu discuter sur le phénomène de la violence ma posté waat ko def appel aux forces vives pour que ñu respecter la paix conformément à ce que je crois et à parti et la stabilité du pays que ñu lutter contre la violence lancé naa ko wax naa ci bind naa ci ci réseaux sociaux yi kon nag man jàmm rek laa bëgg jàmm ci la lépp xaj nous sommes un petit pays nous sommes une même famille boo xam ne bii ku ci dee sa moroom dem jaale ji ko et que politique bi jarul yenn extrêmes yi jarul yenn saaga yi parce que qui am droit de validation c'est le peuple sénégalais et il va valider comme il a toujours fait le 17 novembre maintenant li nit ñi war a xam mooy que Sénégal kenn moom ko ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. le président de la République et notre serviteur le premier ministre Ousmane Sonko est notre serviteur les autres sont des acteurs qui veulent contrôler le parlement nañ ko def dans la décence dans la légalité et que le peuple va essayer de valider mais lii ñu koy defee rafetul parce que commencé di xasante di saagante au lieu de parler de l'essentiel bi nga xam ne bi moom moo intéressé réew mi mais dañ fee nekk fii di génne ay passé ay affaire ay waxi passé ay waxi xasante ay waxi on mobilise tour le pays hein qui danse chante alors qu'on dit ne conditions sociales yi metti na je me suis posé même une question j'ai dit que mais dans quel pays nous sommes on dit que Sénégal l'économie est à l'arrêt on dit que le Sénégal pays ruine pays yi ñu ngi yóbbu nit ñi chômage Sénégal metti na metti koo xam ne bii gor yi doon di woon tàllal seen loxo sax ñi ngi tàllal seen ay loxo di laaj secteur privé bi ñi ngi envoyé seen ay nit au chômage tout le monde dit que dëkk bi doxul mais lan ngay gis ay nit yu taxaw di fecc di woy ay karawaan yoo xam ni doo xam fu oto yi jóge doo xam fu xaalis bi jóge le pays nekk en bouillonnement de chansons de bolides xaalis buy circuler parce que ñëpp ku ci nekk ay milliards ngay dawal fi mu toll nii élection ce qui dire que war nañoo contrôler le financement des actions politiques ak itam ñoo xam nit ñi fan la ñu jëlee seen xaalis bii parce que lii mooy montrer que les mafias trafiquants yi mais mën nañoo dugg ci suñu ay élection parce que on ne contrôle rien da ngay gis tëb fii yor lu mat quarante boutique yor sécurité di organiser ay meeting parce que foofu defee rassemblement ay xaalis génn na kenn du leen laaj fu ngeen jëlee xaalis bi kenn du leen laaj naka la ak affaire yëpp ça veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut c'est très dangereux mm-hmm. Mm-hmm. il va falloir que ñu jéem ci penché mais ci biir affaire bi faatu dafa am lu feeñ ci confrontation Barthélémy Diaz ak le premier ministre Ousmane Sonko mm-hmm. foofu laa bëgg a wax ak le premier Ousmane Sonko et le président Diomaye xam nga nit ñi da ngay def déjà benn benn émission. nga lancé benn affaire kenn du ko déglu kenn du ko gëstu xam nga yow def naa fi émission ak yow. Mm-hmm. bi ma defee émission bi yow loo ma déggoon mën naa leen il faut protéger ce binôme. oui je veux pas que ce binôme éclate pour l'intérêt du Sénégal. xam nga nit ñi dañ defoon dama utiliser expression damay waxantu man. Mm. man du ma waxantu. Mm. moi je suis un acteur politique mmh. je suis un acteur développement et j'ai un carnet d'adresse te xam naa lu bari lu xew ci réew mi mhm. heure ma génnee suma kàddu rek am na fu ma ko teg mhm. am naa ay sommité yu ma ci waxtaanal soog a wax bu wax wax wax jotee ci lay wax xam nga le premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye ont une lourde responsabilité mhm. war nañoo fexe ba l'espoir que ces jeunes sénégalais la et le peuple ont eu ci ñoom ba jox leen soble pourcentage jël reenu réew mi teg ko ci seeni loxo war nañoo def très attention le Sénégal n'a plus le droit de perdre cinq ans le Sénégal ne peut pas continuer ci blocage bi ñuy vivre et il faut éviter que cette bombe qu'est la jeunesse qui s'est sacrifiée qui a fait de la prison, mmh. qui a perdu certains d'entre eux. Et c'est bien que Ousmane Sonko ait ce tableau-là et le rapport et le présente tout le temps. Personne ne doit oublier ce sacrifice-là. Personne ne doit décevoir cette espérance et ne doit briser ce rêve de rendre meilleur. parce que loolu dong la seen bien-être kese. Mhm. moo tax ñu topp président Ousmane Sonko ak Diomaye mais dañoo war a xam benn affaire. j'avais parlé de courant qui vont les traverser pour essayer xàjjale leen il y en a qui ont fait de l'entrisme on parle d'entrisme c'est pour pénétrer un système d'abord mm. essayer de le détruire de l'intérieur mm. am na il y a des courants yoo xam ne seen ay intérêt moom la ñu menacé te bëgguñu ku ko laal am na ñoo xam ne dañoo yor seen ay dossier def seen ay toofi buggunu ku def la reddition des comptes ñooñu ñoo fi nekk di def seen ay pexe di yor seen ay relais di waxloo seen ay nit ci presse di duggaloo seen ay nit ci këru diine yi di duggaloo seen nit au niveau des masses populaires pour di génne yoo xam ne yii moo war a tàqale le premier ministre Ousmane Sonko et le président yi soo leen xoolee sax fi ñu nii hmm. il faut une espèce de distinguo en disant oui le président Diomaye il est comme ça le premier ministre il est comme ça. Mm. et il faudrait que le président Diomaye se départisse de Ousmane Sonko. Mm parce que moom nitu jàmm la nitu su la loolu yépp ay yàq la. Hmm. ñii ñoo àndandoo demande surface yu Sénégalais yi Sénégalais yi xamoon que ni sa binôme laa mooy laaj réew mi ñu jël reen yi jox leen ko. Hmm. il faut faudrait qu'aujourd'hui pour l'intérêt du Sénégal ñu jox leen l'Assemblée nationale voter leen un budget ba pare di leen surveiller di xool ba xam est-ce que ñoom li ñu diggoon Sénégalais yi mm. est-ce que nar nañ koo def est-ce que attan nañ ko c'est la raison de mon choix je ne suis ni de Pastef mm-hmm. je ne veux ni rejoindre Pastef parce que depuis le président Macky Sall laa yor sama parti en 2014 dugguma APR tey mosuma faa dugg damaa nekkoon en alliance dans Benno Bokk Yaakaar le PDS je n'ai jamais été un transhumant nous étions CDP Garab Gui nous avons fait une fusion avec le PDS mm-hmm. donc moi je connais pas la fait un choix d'un vote qui une liberté et pour l'intérêt du Sénégal man d'accorduma ci ñuy wax ay affaire cohabitation et surtout nag la mm. cohabitation n'est pas possible dans ce pays-là parce que notre régime il faut que ñu changer ko pour que cohabitation di mën a am li mën a am mooy ay majorité de blocage à l' assemblée nationale. bu boobaa réew mi day taxaw te ñoom sax annoncé nañ la couleur dégg naa kenn ci ñoom ndax ne bu ñu jëlee bu ñu jëlee bu ñu jëlee régime bi avion dootu daw. oto dootu daw ñu bloquons tout pour leur montrer que ni perte nañu pouvoir bi. waaw wu ko nekk man mi nekk un développeur nekk ci secteur privé bi. am suma entreprise boo xam ne maa ngi fay ay charges fixes employé ay vingt deux personnes que je paye à la fin de chaque mois actuellement gis entreprise yi BTP yi arrêté parce que les chantiers de l'État sont à l'arrêt mm-hmm. ma gis cette multitude de jeune boo xam ne bii ñun xam na ne les jeunes pour leur donner des emplois il faut d'abord les former kenn mënatu leen a former mm-hmm. il faut de grands travaux de l'État tous les chantiers de l'État du Sénégal sont à l'arrêt est-ce que man dinaa accepter di woteel kenn pour que nga dem téye réew mi ci façon yooyu est-ce que man dinaa woteel kenn nga dem assemblée nationale di entraver la possibilité de fonctionnement de la haute cour de justice pour nga xam ci lañ war a juger les prévaricateurs vous croyez que man loolu dinaa ko nangu ma lank du ma ko nangu donc leer na la présomption d'innocence je suis pour oui. je veux que une justice juste mais je veux li nga xam ne bi la mooy ay mécanismes yuy booster l'économie yuy tax que ñu def réduction yi. loolu man je vote pour ça. c'est ça le sens de mon vote. d'accord je ne suis pas pour le blocage du pays. et je suis pas pour que gars yi di diviser le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko parce que nous allons perdre cinq ans bis bu loolu amee ci réew bi te ñaanuma ko parce que ces jeunes la képp ku diviser diggante boobu. Mm. di nga delloo jeunes yi ñu demaat dans la lan nga gis luy nduru lu